دعوة ربي بارك فيها علماء فاضل حافظوا عليها دعوة ربي بارك فيها علماء فاضل حافظوا عليها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها ما تنسوا الفضل للي راعيها سلفي وأقولها لأي جليس دعوة عظيمة وفخر أنيس سلفي وأقولها لأي جليس دعوة عظيمة وفخر أنيس شفت القيم أبو إدريس عقل وحكمة مسخروا ليها عقل وحكمة مسخروا ليها دعوة ربي بارك فيها وعلماء فاضل حافظوا عليها دعوة ربي yàlla nañu borom bi subhaanahu wa taala fayal cheikh bi te diisal balance su jëfam te borom bi subhaanahu wa taala yombalal ñu jëfe ginnaaw ba ñu déggee ñu ngi jaajëfal mbokk yépp ci xerewlu gi ci concentration bi ak ni ñu rafetalee jotaay bi yàlla na ko borom bi subhaanahu wa taala nangu di gërëm kilifa yi nga xamante ne ñoo fi teew ci ay boroomi xam-xam ak i responsable rawatina ñi nga xamante ne seen teewaay rafetal na jotaay bi lool ci ay boroomi xam-xam ay imam waaye ay responsable coutumier ba ci responsable politique yi nga xamante ne ñoo fi teewal mairie Grand Yoff waaye ba ci ñi nga xamante ne ñooy police Grand Yoff ndax seen taxawaay rafet na te du tay la tàmbali waaye ñu ngi koy commencé miin bi yàlla leen borom bi subhaanahu wa taala fay yiw ñu ngi jaajëfalit mbokk yi nga xamante ne dañuñ di yittewoo liggéey bu mel nii di ci jiital cheikhuna docteur Mouhamed Ahmad Lo fan yi ñu génn damay waxtaan kenn ci ñi ñu jiitu ci liggéey bii mu ne ma journée Grand Yoff bañ ko dalee tàmbaleeg léegi bu matul vingt ans jege na ko diggante quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf la tàmbale ko booba ba léegi docteur Mouhamed Ahmad Lo saa yu ñu ko ci woowee ci ay priorité am la koy def bii moo ci mujj fekkoon na jamono joo xamante ne emploi du temps yi xatoon na lool daanaka dañoo xaw a sax naj programme am ngir mu bëgg cee dugal activité bi kon ñu ngi ñaan borom subhanahu wa taala mu fayal ñu ko borom subhanahu wa taala guddal fanam lool ñu yàgg di jëriñoo xam-xamam te bu jekkee yomal qiyaama borom subhanahu wa taala yëkkati ay darajam yomb na yàlla yal na ko yàlla def. dañ cey jógee jéem a fàttali mbokk yi rek ñi woote ñooy ñan ak lan moo sabab seen liggéey xam ngeen ne ñi woote ñooy coordination musulmane de Grand Yoff et environ. ay mbokk la yoo xamante ne dañoo dëkkoon ci ay gox yu tasaaroo dem ba mu yàgg ñu gis ne ay dëkkandoor lañ ci ay quartier waaye liggéey bi dafa mel ni nosewut àndut ñu ne nañ boole suñu xam-xam boole suñu alal boole suñu jot tànn benn kilifa mu jiite ñu ñu àndandoor ñun ñëpp liggéeyandoor ngir alquran ak sunna rek liggéey bi fukki quartier ñoo ko bokk du jar ñu tudd leen waaye xam leen ne liggéey la boo xamante ne jubluwaay bi lenn rek la mu yitte bi mag bi nga xamante ne ñun yëg nañ ko ci suñu xol waaye yëg nañ ne it suñuy borom xam-xam seen yitte yëpp loolu la mooy fexe ba mbooleem ñi woote woo ahlu sunna mbooleem ñi woote woo téere yàlla bi mun a bennoo mbooleem ñi woote woo jullit mun a bennoo am benn njiit bi wax ci seen kàddu fexe ba yitte googu sotti loolu rek a jur liggéey bu mel nii moo tax dañ ciy profité di remercier ñi nga xamante ne ñoo gën a yaatal liggéey bi ba jëmale ko ci mboolem réew mi lu si mel ni coordination des musulmans de Dakar di ñaan borom subhanahu wa taala yitte boobu waaye lu mel ni kamis mooy coordination des associations et mouvements islamiques du Sénégal ak képp koo xamante ne yaa ngi jox ci yaa ngi dox ci yitte bu mel noonu di ñaan borom subhanahu wa taala mu sottal sa yéene kon coordination Grand Yoff ñu ngi tàllal seen loxo ci képp koo xamante ne liggéey bi ñor na la nga ñëw jàpp ci di wax ne dañoo naan ay projet yu màgg a màgg ci fànn wu ne ci fànnu xam-xam soxla nañ ku ñu jàppale ci fànnu alal soxla nañ ku ñu jàppale ci jot soxla nañ ku ñu jàppale lu waaye am wala mu xam ko wala mu mën ko rek bu ko indee ci digg coordination ba dana gis ne yittewoo nañ ko kon ñi nga xamante ne ñu ngi woo mbokk yi ci yëngatu ci wàllu diine ñu ngi leen di woo it ñu ñëw fekk ñu ci cadre bi ñu nekk rawatina nag ñi nga xamante ne ñoo dëkkee Grand Yoff di ko wër projet yooyu ñu naal bi ci gën a màgg jamono ji su ma yemu ma ne mooy jàkka ji ñu nekk di masjidu ali ibn abi talib radiallahu anhu xam ngeen ne ñi miin journée Grand Yoff at yi jiitu woon ñu ngi ko daan amalee fële ca CM Grand Yoff fa lañ daan amalee journée Grand Yoff waaye liggéey bi di dox ñu dem ba mu yàgg borom bi subhanahu wa taala ci baaxam ak tawfiqam mu jàppale nit ñu barab bu mel nii di jàkka ji ñu nekk di masjid ali ibn abi talib bañ fi njëkk a tàmbali di fi def journée Grand Yoff boo leen fàttalikoo dañoo baaxoon fële fii nekkoon jàkka ju daw yoo xamante ne daanaka téeméeri nit xajul foofu ñu dem ba mu yàgg yitte bi gën a màgg ñu ne kat war nañ koo mën a def mu nekk jumaa ju mag joo xamante ne mbooleem activité yi nga xamante ne bëgg nañ koo amal dala fa xet waaye it mbooleem liggéey boo xamante ne daawa bi soxla na ko borom subhanahu wa taala bëgg ñu defal ko dañ ko ci mën a defee yitte boobu moo jur ñu ne nañ tabax jàkk waaye tabax jàkk laaj financement laaj alal kan moo koy tabax ñu ne nañ wuti financement comme ñëpp ñu ne déedéet ku lay jox financement ndax dañoo foog ne daawa bi daa may ONG yoo xam ne dañoo taxaw rek ku ne am naa liggéey rek ñu la am wala état dafa taxaw jël budget boo xam ne daa ne ku ne damay tabax jàkka rek ñu la am wala am ay bailleurs de fonds yoo xam ne dañoo taxaw rek ku ne damay tabax jàkka rek ñu la am déedéet mbir mi demeewul loolu ñu yëg ne kat buñ bëggee tabax jàkk il faut que ñu làmm suñuy poos ay mbokk daal di volontaire yow miy dégg man miy wax keneen ak keneen ku ne ci ñun daal di làmm poosam teg ci taabal di liggéey bi daal di tàmbali bañ tàmbalee ba léegi nag ci loolu lañ nekk ñi fi ñëwoon daaw ci journée Grand Yoff ñëwaat fi ren gis nañ ne kat am na fu ñu dem am na lu ñu avancé nu mu yéex yéex ñu ngi dem liggéey boobu nag di ngeen ko gisee ba tey ñu ngi ci chantier boo xamante ne lu rëy a rëy mu ñuy xaar lu bëree bëri mu ñuy xaar ci liggéey bi kon nag ñu ngi ciy woo mbokk yëpp. ñu ngi ciy woo mbokk yépp ku am xam-xam bu doxal liggéey bi jëmale ko kanam soxla nañ la muy maçon muy ingénieur muy ingénieur muy maçon muy architecte muy peintre muy carreleur ak loo mënti doon ci domaine du bâtiment soxla nañu la bu fekkente ne alal bu financé liggéey bi la soxla nañu la bal bu fekkente ne main d'œuvre même bu dee manœuvre rek mu mën soxla nañu la ndax jàkk ji lu bëri li ñu foog mooy que ni ab maçon moo ko tabax dëgg la am na ay ingénieur yu cay jàpp am na ay maçon yu cay jàpp am na ay architecte yu cay jàpp waaye liggéey bi ñu ko yor dëgg dëgg dëgg seen liggéeyu bopp dañuy yor dañuy xëy kër kër yi ba wàcc dimanche jot ñu woote koor rek mbokk yi sol seen i tenue ñëw fii ñépp nekki maçon ñu jàpp ci liggéey bi liggéey boobu nag ñu ngi ciy woote ba tey ba tey liggéey baa ngi des lu bëree bëree bëree bëri te yaakaaruñ ko ci kenn kudul ci sunu poos yi ginnaaw ba ñu ko yaakaaree ci borom subhanahu wa taala kon ñu ci woo ñëpp waaye it di profité ci jotaay bi di woo borom xam-xam yi di leen wax ne liggéey bi soxla na leen ndax jàkka ku ko wax wax xam-xam jàkka ku ko wax wax jiite jàkka ku ko wax wax jàngale kon ñu ngi ciy woo borom xam-xam yi di jox kàddu gi cheikhuna docteur Mouhamed Ahmad Lo di sàkku ci moom ay tawjihaat ci ñaari fànn yooyu mooy ci fànn xam-xam bi nga xamante ne soxla nañu ko waaye it ci fànn joxe bi nga xamante ne soxla nañu ko di yëgal mbokk yi ne am na ay mbokk yu nekk ci biir yor ay saaku di sàkku ci mbokk yi ñu dugal ci xaalis bu bëree bëree bëri daaw dañoo waxoon ne un million lañ soxla balaa ñoo jug balaa ñoo jug am nañ fi ñetti million kon nag ren ñetti million laay laaj insha allahu taala alhamdulilah xam naa li ñuy jëkk mooy sant suñu borom tabaraka wa taala mi ma baaxee ay at yu yàgg yàgg maag ndaw ñi ñuy liggéey ci ci liggéey bi mi ngi wax sànq may fàttaliku ca conférence yu jëkkee nga xam ne ci daanaka say boobu ne ci ay garab lañ ko doon defee ak ay baas yu néew yoo xam ne léeg-léeg ngelaw lu ñëw sax xaw koo yëkkati ñuy defaraat ci biir conférence bi ñoom Alioune Sène ak mbokk yooyee yàlla di dem ba béréb bii am béréb bi nga xam ne ba mu doonee aw naal maanaam yéene mu am lan ci nekkoon ci wàllu xalaat ak jàppale ak ñi nga xam ne ñoo ca doon taxaw booba te Papa Amadou Ndiaye nekk ci seen bopp yàlla na ko yàlla dolli wér gi yaram liggéey na liggéey bu rëy rëy rëy rëy ci ci amal teere bi bëri ci bëri boo xam ne bu bëree bëri la boo xam ne seede nañ ko te ànd nañ ca ak moom mu door a am yàlla na ko ci yàlla fay aw yiw liggéey bu mel nii nag liggéeyub lislaam lii mu junj léegi moo ko yor maanaam bu ngeen gisee adduna bi luñ song lu ne ñu mën koo defar bu leen defe ne daa am ay malaaka yu nekk fële di leen joxub xaalis wala ay nit ñoo xam ne loo yëkkati ñu ñu ne la lool def naa ko déedéet kenn ku ne da ngay def la nga mën ki yor as xaalis joxe te joxe xaalis ci tabax jàkka ak lu ca aju deesu ko xeeb boo gisee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ci xadisu Usmaan ibnu Affan ne man bana man bana lillahi masjidan ka mifxasi qataa bana allahu lahu baytan fil janna ku tabaxal yàlla jàkka ju toll na tàggum picc yàlla tabaxal na la kër ca àjjana ndax jàkka dana toll ne tàggum picc jàkka ju nit di jullee dana toll ne tàggum picc déedéet waaye la nga cay def lu mu tuuti tuuti bu toll woon ne tàggum lay la tàggum picc di jar sax boo ko defoon ci jàkka ji tabax nga jàkka tey yàlla tabaxal na la kër ci àjjana bu fekkee ne sell na moo tax ma ne la ngay jël di ko def ci jàkka loola deesu ko xeeb deesu ko yéem it nag ndax lu mu bari bari it say xéewal day baree noonu rek yàlla mooy koo xam ne deesu ko jox di perte genn góor daf ne ma man de sama dund genn wàll gi yépp ci benn xadis la nekk ma ne ko ah mu ne bi ma jàngee ne borom bi tabaraka wa taala dafa wax ne yam na aadama anfiq unfiq aleyk yow doomu aadama joxeel ma jox la joxeel ma jox la nee na saa bu ma demee ba bëgg dara lu gën li ma yoroon la ma yoroon dama koy joxe nee na te musuma koo def fanweeri at nekk naa di ko def musuma koo def joxe dara lu dul dana am loola ci boppam dana ma dikkal ci anam goo xam ne moo gën la ma yoroon su ma yoree sama oto ba màggat ma bëgg oto te amal ma ko jënd nee na damay joxe oto boobu fi sabilillah nee na diir bu gàtt rek oto dana ma bett boo xam ne nekkul woon ci sama xel lépp comme nee na ci noonu la koy doxale te nag xadis boobu genn góor moomu ko la ñaari góor xadis bi borom bi tabaraka wa taala ci boppam moo ko wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na bis bu yàlla sàkk am na ñaari malaaka yoo xam ne menn mi ak jaamu yàllaam 24 heures sur 24 mooy allahumma aati munfiqan xalafan yàlla ku joxe ta nga tax yàlla na nga ko wutalal lu gën lam joxe woon malaayika moomu nee na ñaan boobu mooy ab liggéeyam 24 heures sur 24 ba yàlla sakkee àdduna ba tey meneen malaaka ma taxaw fële di wax allahumma aati mumsikan talafani yàlla képp koo xam ne la nga ko jox téye na ko nanguwula caa delloo dara yàlla na nga sànk alalam mooma malaayika it loola mooy zikkaram guddi ak bëccëg ca loola la nekk jullit bi dem ba xam loolu gëm ko gëm ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mii nuy tudd di ko roy moo ko wax kooku dana soññ jullit bi ngir moom dana fexe ba joxe mu am cib cër moom ak lu mën a xew dana fexe bay joxe joxe la ci jiitu mooy faratay asaka yaag ya ca des waaye nag buntub joxe dafa yaatu sarax yaa nga ca leneen nga ca def ci néegum yàlla bokk ca yi ci gën a tedd ndax alal joo mën a joxe di sikk sàkk ndax naan ndax lii moom ki ma ko sarax nii la koy def ak nee la koy def waaye li jëm ci jàkka ji moom wóor na lii moom jaamu yàlla dong lañ ci mën a def mënee su ko def nenn te àdduna du tukki ba jàkka ji di ko jaay nit ñëw jënd ko soppi ko mu doon marché wala mu doon leneen mënta nekk néegum yàlla lay doon ba faww sa dërëm bi nga ci def itam jaamukaay yàlla lay doon ba faww kon nag mbokk yi def leen ci jàkka ji maanaam maanaam li ngeen am def leen ko ci doonte foofu nga toog la nga yor da nga koy joxe ba mu jeex dàkkit boo génnee sa borom tabaraka wa taala moo gàddu say mbir ak sa njaboot kon bul xeeb la nga am na nga ko ci def loolu yi sëriñ Njaay wax Mansour fexe leen ba bu fi kenn jóge mukk te te matut nee na million la waxoon daaw mu doon ñett kon nag ah yéen yéen a ko yéen a yéen a tax mu wax loolu ndax yéen a ko defoon te li nga def ñu door koo wax loolu moom day ëpp yaakaar beneen tomb bi mu wax mooy soññee ci njàng mi njàng mi jàkka daara la war a doon loolu faw ñu xam ko daara nag buñ ko waxee ñaara ko séq kiy jàng si ak kiy jàngale xam nga ni jàkk dafa doon jàngukaay boo xam ne borom bi tabaraka wa taala daf cee def tawfiq jàngukaay yu bari tey nañ ko organiser yow mënoo nekk mag doon borom kër ñëw ne damay jàngi ca école ba wala ca daara ja nga xam ne ay gone yu toll ci juróom-ñaari at ak juróom-ñetti at ñoo fa nekk jàng war na am lu wut loolu jataay yoo xam ne dañ koy jàngal nit ñi alxuraan di leen wéral wéralal seenu jàngeenu alxuraan ay xalaqaat yoo xam ne mag mu ca toog ba yëg ne moom mii lu gàtt kat lu gàtt gàtt soxla naa wéral njàngum faatixaam ak fàllaxeeg naasi mu ñëw toog ci benn géew ñu wéral ko ko ba am njàngam wér ba muy julleeti mu wóor ko ne julleem baax loolu moom jàkk da cee war a taxaw ñaareel mooy xam-xam yi ci jëmmi boppam yi ñuy jàng war na am géewi xam-xam yoo xam ne dafay jàngale day orienté day jubbanti ay góor ak i jigéen mag ak i ndaw ñi bokk dafa teew di ca jëriñ dàq waxtu yoo xam ne day dëppoo waxtu li ëpp ci nit ñi nga xam ne danañ ko mën a teew loolu rôlu jàkka la bu àndee ak xutba yi mu def loolu ko war ci wàllu xam-xam ak li aju ci wàllu orientation ak jubbanti ak participer nag ci koñ bi sax jàkka war te yem ci loolu rek waaye dafa war a am rôle ci wàllu social boo xam ne borom xam-xam yi ñoo ko war a jiite ndaw ñi nekk ci seen gannaaw bu koñ bi laajee ñi bale ko ñu ànd ak ñëpp bale ko ba mu set wecc ñi xam ne jàkka jeeg li ko wër set na quartier bi set na te fekk li ko setal ci biir jàkka ji la jóge am na nit ku aajo ku ko dimbali ma nga ca këram waa jàkka ji dikk dajale li ñu ko dimbalee dem jox ko yooyu yëpp ay rôle la yoo xam ne jàkka war nañu taxaw muy wàllu social wàllu jàngale xam-xam képp ku soxlaa jàng daal ñëw ci jàkka te amoo kenn ku la jàngal xamal ne waa jàkka je ña nga lay gàddul àq loolu nag des koy organiser commission bi yor jàkka ji ci lañ borom xam-xam yi nga xam ne ñoo war a jël ci seen temps def ko ci ci lañ bokk kon njàng mi dafa war a am te jamono lañ nekk joo xam ne njàngum diine dafa jaaru nit ñi jàng ko xam ko ndax ki xamul diine moom la ñu mën a nax te nax ci diine ay naxam du tuuti naxi diine ci nax yi gën a garaaw ci nax yi ci la bokk xam nga ne ndaw ñii ñuy nax di leen yóbbu ci yu kenn xamul ñuy dugg ci ay ay ay njaaxum ay lixoor di rey seen bopp jàpp ne dañuy dañuy taxaw diine lislaam loolu ñàkk jàng ko indi ku jàng ba xam sa diine lenn lu nekk xamul atteem xam la ca sharia wax ak kañ lay doon ak kañ la dul dagan kenn du la mën a nax ba dugal la ci mel noonu moo tax ndaw ñi faw ñu jàng faw ñu xam faw ñu xam sharia su loolu xamul amul njaaxum yi day continuer di am rek boo gisee ñi ëpp ci ñi ñuy yóbbu mooy ñi nekk ci école publique yi nga xam ne kenn jàngalu leen diine xamuñu dara ci diine dañuy ñëw wax leen dara wan leen ab film ñu tàmbali di jooy nangam nangam ñu ne lii la yéefar yi def te wax ñëpp ñëpp la jaadu ci ñoom ñu dem xeexi leen borom xam-xam yi noppi nañ waxuñu ci dara kon nag noonu noo gisas daal di bopp yóbbu ñu nekk ci ay njaaxu kon faw yu mel noonu ñu bàyyi ko xel am na fi laaj bu fi ñëw ba bind naa ko ni waaye defe naa danañ ko mën a booleeg laaj yi docteur bi wax incha allah
Jazakumullah khairan. Di saat di Timur Kota di 094 AK menjaga seorang guru. Mbokk yi nga xam ne dañuy bëgg di participer léeg-léeg ñu ngi leen di jox benn numéro boo xamante ni ku ci dugal arrangement yi dinañ ci jot ku ci dugal waay dinañ ci jot mooy 77 635 87 03 77 635 87 03 bu dee kii yónnee wari def ko ci turu Lamine Dramé moom mooy commission finance 77 635 87 03 Lamine Dramé kon xëy na dañu jublu ci laaj bi kon fii bu ko defee ubboon nañu bunt bi ba dugal ci question yoo xamante ne xëy na du ci thème bi waaye léegi mbokk yi dañuy soxla di jàppale ci yenn masal yi ba tax na dañuy jox kàddu bi docteur Moustapha yi bu ko defee mu waxal question yi nga xamante ne ñoo tax ñu ci loxo wa jazakumullah xayran
bismillah mbokk yi ñoo ngi santaat yàlla di gërëm suñu kilifa ci waxtaan wu leer bi ak bu am solo mu taxawee liggéey bi yàlla xam ne am na loo xam ne préparé woon naa ko comme président de séance da dañuy gis ne fii mu am dara lu fi yokk par rapport ak ñeenti tomb yi nga xam ne ñu ko ci waxtaan bi lii nag mooy wàllu njëkk bi comme ni ko waxee woon ñaareelu wàll yu mooy bi ñuy jublu ni léegi mooy laaj ak tomb yi am na yenn yu ma jot fii waaye dama ñu sama bopp
macha allah
Saya kisah perubahan akhiran dégg ni waxtaan bi fi waxee tey jii ku façon yéene soob julli nga nekk koo xam ne da ngay dund sa diine individuellement sa biir kër ak sa biir famille wala nga nekk ci koo xam ne da ngay yëngal ci association islamique yi lii nga xam ne tey jii conférence bu générale ñu jëlee ko nii nit su ko bëggoon commencé fii la ñu war a commencé lan nga koy digal est-ce que ni ñuy tàggatee nit yi mu yàq mu déggee nit yi méthode yi ngay utiliser est-ce que dafa nuroo méthode yi nga xam ne tey jii soo jàngalee moom ngay utiliser man loolu laa bëggoon laaj Cheikh jazakumullahu xayran boobu mooy plan bu njëkk bi laaj bu ñaareel bi dañ ne borom xam-xam yi dafa dañuy faral di wax que jëf gi dama kaa bàyyi ndax gis tëj bi ci yàlla mu ne loolu nan la ñuy dégg mu ne yan dénkaane ngay dénk ndaw yi ci li ñuy jëflanteeg les réseaux sociaux ñeenteel bi sa biir wax sànq wax na ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bindil nañ ko amoon néew néew bi indi woon ci kanamam mu ne ay mbokkam ndax dafa am bor mu ne vidéo mu ne est-ce que loolu leen wax loolu dafay signifier que ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yërëmu juróomeel bi mu ne maa ngi sama bopp ci samay ñaawteef yu bëree ak samay jëf yu baax ni mu néewee ak bor yi nekk ci sama loos ni mu bëree mu ne maa ngi lay ñaan seen docteur nga am lenn loo ma baaxee
نعم طيب ماشي الحمد لله xam naa laaj bi jëkk a ñëw moom bu am solo la doonte yëpp am solo it nag daanaka xaw naa nekk ab conférence waaye rek danañ ci gàttal ndax waxtu wi li ci des bëreetul muy ban méthodologie lañu war a mën a jaar fi mu nekk ba nit ki mën a defaru ba ci wàllu jàng ak yar mu mën a àgg foo xam ne yii ñuy wax yépp dana ci mën a mucc fexe ba mën a doon ku dundal àdduna dundal àllaaxira te du ëppal fii du yées fii loolu ab liggéey bu rëy la sooy boo jàpp ne liggéeyu yonent ya ak formateur yu mag ya ak wootekat ya loola moo doonoon seen itte ju mag mooy fu ñuy jaar ba defar doomu aadama ji ba mu doon ku mucc nekk koo xam ne du ëpp te itam du doon koo xam ne ku yées lay doon loolu nag lu ñu la ci mën a wax mooy xam-xam moom ci la bokk maanaam base la boo xam ne mënut a ñàkk ki jàngul xamul diine neexut a yamale benn mu ëpp wala mu yées bu fekkee bëgg diine gi jéggi na dayoo ba xol ba àgg ci xobee te xam-xam nekk fa mën naa ëpp ëppal ci diine bu fekkee ne xol ba wow na it te mooy lay gën a bari mën naa dugg ci ay njaaxum ci ak dellu gannaaw ci wàllu diine kon fexe ba réglé ko ba mu yem mel ne montam ci wàllu diine ak ci wàllu àdduna foofu la liggéey bu mag ba nekk foofu nag gannaaw bu xam-xam moom yi jàllee li ci tegu mooy yar yar nag buñ koy wax la ci ëpp solo mooy am royukaay am royukaay boo xam ne danga koy gis di ko yar lan moo tax ñu war a jàng dundug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léppam yonent bi mooy koo xam ne léppam dañ dañ koo bind bàyyiwuñ dara ba ci melokaanam ak bindam sax téere ñi wax ashamail bàyyiwul dara am na benn dessinateur bu mag nee na su fekkoon ne dessiné yonent bi dagan na bi ma jàngee ashamail lil imaam Tirmisi bi ma ci bare mën naa koo dessin ci anam boo xam ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent danaa ko indi ci nam meloon kon ki lay ki lay wax ci nit ba wax la nam meloon ci biir téere ba bàyyiwul lam doon def lépp xam nga koo xam ne dañ laa topp di bind di topp di bind ba nga dugg ci wana wa ñu xool ban tànk ngay jiital booy génn ban ngay jiital boo fay dugg looy wax bay ànd ak soxnaam ñuy bind la fa doon xew moo tax danaa di wax ne ab yonent ay ab nattu la ab nattu la ndax koo xam ne sa lépp dañ ko war a génne ci mbedd bi nit ñi xam ko ndax ñi mën koo roy ginnaaw modèle nga loolu moo tax yàlla xam na ne bind nañ ci téere yi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loo xam ne jàngalekat bi ak lu mu doon doon ab jàngalekat léeg-léeg mu agsi ci benn masala lay def tekk taxaw di xalaat nan laa koy waxe ba mu àgg ci xelu ñi may jàngal te duma jaar ci digg bi nan laa koy waxe ba mu àgg ci ñi may jàngal te duma jaar ci digg bi te fekk ka ko riwaaye nettali ko moom ca digg ba la jaar ndax des ko war a xam daa war a leer da nga dem ba àgg ci loo xam ne boo ko waxoon ci bàyyi nit wala ci ab sëriñam bala ngaa daaneel mu dal sa kaw loolu ñu koy wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu tax mooy da ngaa doon koo xam ne yàlla da laa tànn indi la ñu war a xam sa lépp loo def ñu mën koo xam ndax nga nekk modèle waaye modèle boo xam ne xamoo ci moom dara day làpp doo ko gis kooku mënul koo roy da ngay rafet njort rek waaye xamoo ci moom lu bari kii nag léppam dañ ko war a xam su lu mel noonu amee jamono ju nekk war naa am ay boroomi xam-xam yoo xam ne dañuy dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu doon def ci loolu ci la nit ñi mën a jàngee ne lii ñu doon jàng ci téere yi kat du ay léeb ak i lëpp waaye lu mën a nekk la ndax diw sàngam mi ngi koy dund su ko defee diw sàngam moom mi ñu koy roy ci lool ndax li nga jàng ci téere bi ba xam ko wëlbati ko gis ay nit di ko dund ci sa kanam nga ànd ca ak ñoom loola moo gën a gaaw ci defar la moo tax sàkkukati xam-xam yu jëkk ya dañ daan wax ne bala ñoo sàkku ji xam-xam ci nit ka dañuy njëkk a sàkku ci moom yar ak teggiin al asram mi ngi wax ne al imam ahmad daana génn toog di jàngale lu mat cinq mille ci ay kat ay doomu aadama toog ci géew bi muy jàngale al imam ahmad ibn hanbal juróomi junni nit nee na ñeenti junni yi ak juróomi téeméer kenn ku ci ne boroom xam-xam nga boo xam ne yaa ngi bàyyi sa daara ñëw toog waaye li la indi du xam-xam ndax li ahmad xam-xam nga ko waaye li leen indi mooy hadiyuhu wa samtuhu yar bi mu àndal ak teggin yi mu àndal ak ni muy waxee ndongaam yi loolu moo leen indi ngir ñu roy ko ci moom kon juróomi téeméer képp ñëw fa ñëw di sàkku si xam-xam waaye ñeenti junni yi ak juróomi téeméer dañoo dikk di sàkku si teggin te doon ay borom xam-xam nag yu matal ba noppi kon nag loolu daf lay jox docteur ne mbir mi mbirum xam la waaye mbirum jëfe la mbirum roy la mbirum dund la ak jaxasoo ak xamante nag bu wér moo tax loolu ci liñ gën a aajowoo tey ci la bokk ndaxte dafa xaw a jafe ci suñ jamono ji lool ñàkk jot yi dem na ba àgg ci ñi yàlla dénk dara ci xam-xam dañuy dem ba mu yàgg seen diggante ak seen bopp dañuy rus yëg ne am nañ ak gàttañ lu ci seen diggante ak seen ndongo yi ndongo yeeg ñi nga xam ne ñoo war a sàkku ji xam-xam ñu ci bari seenu ñàkk jot àgg na ci boo ubbi woon fii tey géew xam-xam bis bu jëkk ba mën ngaa gis mbooloo mu bari bisum ñaareel ba da nga gis genn wàll boo continuer balaa mat weer bu doon bis bu set ngay ñëw balaa weer a mat bootul juróomi nit ngay dese wala juróom benn ànd ak loola loola wërtatee jàngalekat bi continuer di jàngale su fekkoon ne day ñëw fekk kenn nit toog sax war naa continuer jàngal ko ba jeex mu dem moom it yaram foofu la war a toll am na benn taalibe ci Cheikh Abdourahman ibnu Jibril muy borom xam-xam mag a mag a mag a mag a mag ci boroom xam-xam yu mag yi ci la bokk ibnu jibril danaa di wax ne fokkat yi xaw ma fu ñuy jële sonorisation waaye daal moom war nañoo baaxee gaa yi wax ci diine ñu xam fu ñu koy jëlee ndax moom daal néew na nga dégg seen sonorisation daal ay yëf di ko gaar bu ñu xasee tàmbali di yëkkati yooyu ñu yëkkati daal kenn du mën a nelaw waaye waxtaani diine yi moom ñaari toujours dañuy sonn lool ci ci wàllu sonorisation. Cheikh Abdourahman Ibn Jibril ci mujj dundam bu ñu waxoon ne fii tey góor gi moo fi war a ñëw tey war fee def waxtaan wala moo fi war a jàngale. ngir mën a régler jataay bi ak mbooloo mu bari ba mu mën a dugg si rek loolu ab liggéeyu boppam la boo xam ne police li ci dugg ñëpp dugg ci ngir mu mën a agsi benn taalibeem nee na toll na jamono yoo xam ne Cheikh Abdourahman ibn Jibril bu daan jàngale maag kenn nooy toog di ko déglu waaye téewul waxtu su jotee da bu nuy agsi nun dañ koy fekk mu toog di nu xaar loola ca la sax ca la sax ca la sax ba nit ñi xam ko ba wuy si ko wuy si ko toll noonu kon nag jàngalekat bi moom it faaw mu bàyyi xel nag yu mel noonu bàyyi jëf ngir ragal a gis dal bàyyi jëf ngir ragal ne jëf ji su ma ko defee boo tuut gis dal lay doon kooku ci talbiisu iblis ci la bokk maanaam iblis ni muy xeexe doomu aadama ji ba bàyyiloo ko ay jaamu yàlla loolu ci la bokk ñi ci yàlla baaxe ba ñuy jàng am na téere al imam ibnul jawsi boo xam ne talbiisu iblis lu tudd téere boobu ku mën a jàng ku ne war nga koo jàng man dama jàpp ne ab xalqa sax buy jàngale talbiisu iblis warees na koo amal jàngale téere boobu ba mu jeex mu tasaaroo ñenn ñu ne na leen iblis di fexeele ba yàqal leen téere boobu ci loolu lay wax nee na jaamukati yàlla yi dëgg yiy góorgóorlu bokk na ci fenêtre yi iblis di jaar ba dox leen diggante jaamu yàlla mooy ne yëkkat di bëgg a def ne lii kat su ma ko defee bootul ñistal lay doon xaaral ma bàyyi ko nee na kooku ci yoon yi ci la bokk kon yow fexeel ba defaral sa yéene sa digganteeg sa borom bu dee la ñuy joxe bu dee la ñuy joxe joxeel ngir yàlla bu dee la ñuy def defal ngir yàlla sa digganteeg bul faale nit ñi ndax dem ba faale leen ba jàpp ne mën nañ laa yàqal ba sa jëf soppiku ngistal loolu ci jëmmi boppam bàyyi xel doomu aadama bàyyi xel bu ëpp la su fekkoon ne xol ba aju na ci yàlla aju gi mu ci war a aju day dem ba la yaltafitu ilal xalq maanaam geesu leen ak bàyyi leen xel ci ay jaamu yàlla am sax du ko def jaamu yàlla gi sa diggante ak sa borom la loolu kenn newu ci loolu nag boo ko àggee da ngay daal di noppalu ci lu mel noonu am na ndénkaane yi ndaw ñi day moom jamono yu ne duñ ci tàyyi biir réseaux sociaux yi li ciy xew ci ay njaaxum ak ay wax yu tegginuwut ak yu ñaaw tax na ay yooni yooni yoon wax naa ko ci ay xutba wax ko ci conférence wax ko ci ay njàngale les réseaux sociaux yi ñuy bokk di fu daje ca biir di xuloo nañ ko génn bàyyi ko ay kuréeli diine seen diggante su fekkee ak jooyoo dafa faa dox loolu dafa sensible boole leen ci benn groupe kee di wax ñaawal jëme ci kii kee wax ñaawal jëme ci kële ma ne loolu du jur jàmm ña ca nekk tey déggi wax nañu génn foofa boo waxee ñu ne la njariñe ko fa ndax nit mën na caa géndikoo waaye la cay juddoo ci lox moo ëpp lañ ciy séentu ci njariñ bi ci mujj rek mooy li xew fan yi defe naa ñu bari ci yéen dégg nañ ko kilifa gi wàccum liggéey geneen kilifa wuutu ko ay nit jóg wax wax ju ñaaw ca ka wàccum liggéey wax wax ju ñaaw ca ka ko wuutu wax joo xam ne kenn mënu mënu ko dégg lu lu metti ñépp la naqari ñépp te ñay wax xamoo ñu mu doon doo xam ñan la jeneen waaye jooju fële defaat geneen njaaxum bu gën a rëy mooy wax joojee ñooña wax ñu jël ay photo yu doomu aadama yoo xam ne ñay wax sax xamuñu ñu mu doon ñu def benn montage photo yooyee nga xam ne booy déglu wax ja moom ngay gis man mii di wax ak yéen sama photo nga ci ne fànn ñu jël drapeau état islamique def ko ca suuf encore mel ne la bëgg a wax mooy borom photo yii de ñoom ñooy wax wax ji wala borom photo yii de ñoom d'accord nañ ci wax ji ñay wax tooñ nañ tooñ boo xam ne jéggi na dayo ña def montage bi tooñ nañ tooñ boo xam ne jéggi na dayo ñu ne deetawaay am waaju tëbe fële moom dem ca télévision yaag journaux ya bëgg a exploiter loolu xëy na ngir ay soxlay boppam di ca wax wax ju kenn mësta dégg moo ki journaliste am naan président war jot na nag mu jóg ci kaw ñii nag taxaw ci seen kaw ndax ñoo fi indi lii ak ñoo fi indi laa waaw ñoo xamul ñu mu doon ñay wax est-ce que moom xam na ñiy wax ñu mu doon est-ce que du ñay wax sax ay noon yoo xam ne dañoo am lu leen naqari ci jéego yi nga xam ne ñi ngi koy dox ngir benn la julli nii ci réew mi te mbir moom yi ma lay wax mi ngi génn bés bi nga xamee ne ab délégation jóge na fii boo xam ne association islamique yi waa jamaatu bi waa rahman ne ca waa falax nekk ca waa daarul istiqaama nekk ca ñu jóge fii di dem di joxe ci seen jaal ca Touba bis boobu lañ génne loolu ndax bi ñii dañoo bëgg jàmm bañ a xew ci diggante ñii ak ñii ñoo tax ñu def lu mel noonu yow nga tëbe fële ci say journaux say télévision say rajo ngay wax wax yoo xam ne kenn mënta dégg ci koo xam ne da ngaa war a nekk responsable war a nekk kuy régler bu fitna di bëgg a am cim réew far ngay jóg yow di taal fitna ci kaw rek ne am naa ay moyens yoo xam ne su ma waxee nit ñi dégg ko su ma bindee itam am naa journaliste yoo xam ne dañ koy répété nam gën a ñaawe kon ma ne daal ndaw ñi man li sama laa biire mooy nañ génn réseaux sociaux yi nga xam ne dañ faa nekk ak ñeneen ñoo xam ne bokkuñu ñoom euh, kuréel yuñ nekk ci diine parce que la muy yàq moo ëpp la muy defar loolu rek lañ ci mën a wax Euh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne daf daan def ku yore bor du la nangoo jullee mu ne ndax loolu kon daf koo yërëmut mu ko kenn yonente bi alayhi salatu wasalaam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin la yàlla wax yërmaande kese moo ko tax a jóg moom ci boppam nee na ana rahmatun muhdaan nee na man ci sama jëm bopp yërmande la joo xam yërmande laa joo xam ne yàlla moo ma leen jox ma nekk seen addiya yéen ñëpp kon bul am bul réere mbir ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam lu mu def lu ne jàngale na bokk na ci lim daan wattandikuloo jullit yi mooy bor wattu leen bor da ko daan wax kon bokk na ci soññ nit ñi ñi wattandiku bor taxawal action bu mel noonu soo dikkee teewe ab néew yonent bi ñëw ba koy bëgg a jullee ne ah jullee leen ko faf dem bañ a bokk ci julli ga yow mi ko fekke woon ne lu nekk da nga ko jéem ba bor ya nga yoroon ko fay ko ba bis bu mu ne ndax seen ah seen waa ji yor na bor ñu ne ko déedéet yorul bor ndax mu jullee la kon loolu ab jàngale la boo xam ne lam ci jublu mooy wattandikuloo nit ña bor waaye tekkiwul ne moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam du ko ñaanal moom kay da koy ñaanal te it jullee goo xam ne sallu ala saaxibikum yoo xam ne aboubacar siddiq mooy jóg jullee ko wala omar ibnu xataab wala ousmaan ibnu affan ah wala al wala omar kooka la nga cey wax yow mooy ewaaye ndaw ak neexoon kenn ci ñooñu jullee ma waaye nag teewul bind ba dafa war a nekk bind ba dafa war a nekk mbokk moomu lu daw yaram la wax mooy nit ki dem ba yëg càggante boppam yëg ay ñaawteefi boppam muy laajte ak laa biir laa biire goo xam ne dana ko mën a génnee ci càggante yooyu jàpp naa ne su fekkoon ne seytaane gañe na ko ba daaneel ko mu dem ba yëg ni moom mii mi ngi ci ay ñaawteef kon jógaat na taxaw jógaat na taxaw ki yëg martaba bi mu toll yëg ni moom mii dafa sàggan moom mii dafa dese lu bari ci diineem kooku seytaane gañee gu ko yoon wi ubbi ko ne ci kanam ngir mu góor góor li baaxut tey musiba mooy seytaane nërmeel nit ba mu nekk ci ay njaaxum ba tàmm njaaxum yooyu ba yëgatu ko ba yëgatu ko ndax bàkkaar su baree day mujj borom duutu ko yëg dañuy wax ne ñaara ngi yoo xam ne ku la ko ëppale moo la ko gën a ñeme bor ak bàkkaar ki la gën a bari ay bor amatu ca soxla comme dajeel boo ne ko kaay ma lebal la mu jël boole ca bor ba di yokk rek borom bàkkaar yu bari day dem ba amatu soxla ci bàkkaar yi lu mën a ñëw mën na caa xuus mën na caa dugg waaye yaar yooyu ki ko néewle ki ko néewle xol baa ngay dund am na ñoo xam ne buñ la leboon fukki dërëm buñ tëddee duñ nelaw ña ngi xalaat fuñ koy faye am na koo xam ne bu defoon benn ñaawteef bu tëddee du nelaw bu dégg ba ci mooy ciy xalaat bu ko tuubee ba noppi sax day wëlbati ko di ci xalaat da koy metti da koy rëccu fu mu toll loolu nag xol bi dund la kon mbokk mi li ma koy dénk mooy na sant yàlla te yëg ni ab xolam mi ngi dund di ko ñaanal yàlla ab xolam gën a dund waaye nag na gën a góorgóorlu jël ay matukaayam na xool ñaaw teefee ca lam jëm ak càggante ga lam jëm mu jël matukaay yuy tax mu mucc ca loola su fekkee ay àndandoo ko indiwoon yu baaxul na tàggoog àndandoo yooyee buñ ca am maslaa su fekkee ne ab wéetaay moo ko ko tegoon na néewal wéetaay na seet ña baax wut ay àndandoo yu baax mu def leen ay àndandoo di takkoog ñoom guddi ak bëccëg su fekkee am na benn sabab boo xam ne moo tax na fexe ba sabab boobu mu dindi ko càggante gi bu fekkee dafa gisul kum sawar a dool ba jaamu yàlla na seet ci ay moroomam ñu sawar a dool ba gëm yàlla ba ba mën a def seenum jaamu yàlla saxaaba yi léeg-léeg ñenn ci ñoom dañ daan toog ba mu yàgg ñu ne taala li nu'min saa kaay waay nu nu dundalaat suñ gëm yàlla doonte une heure de temps la itam yàgg kenn ngeen ànd sasoo dara tey daal danoo fas yéene buñ jullee ba sëlmal fajar la yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon mooy toog fa di jàng alxuraan ak tudd yàlla ba jant bi fenk ma julli ñaari rakka diw kaay nu def noonu tey ngeen dimbaleen te def ko tey bu ëllëgee ngeen defaat ko bu ëllëgee mu nekk lu sax ci seen i cër parce que jaamu yàlla yi ak naafila yi surtout ay cër dañ ko koy jàngal ba mu tàmm ko waaye su ko tàmmagul lu diis lay doon ci moom waaye lu mu ci xas tàmm nag day dem ba woyof day dem ba weesu woyof waaye day mujj bànneex lay doon ci moom moo tax faw nag àndandoo yi ñuy dimbalante ci jaamu yàlla sa moroomum jullit moo xam ne yéen a ngi ànd di dugg ak yéen ba mu yàgg nga gis ko mu tàmbali di sàggan jàppal ci loxoom ne ko kaay yow mii kat maa ngi gis ci yow loo xam ne daaw mu ko def au lieu muy wër nit ñi naan leen diw dafa sàggan rek def na nangam ak def na nangam kaay kaay kaay lu dimbalante am lu ngeen sasoo di ko def jàng leen ci téere jàng leen alxuraan yow teel leen a yeewu julli ci guddi seet seet leen lu ngeen def loo xam ne moo leen di programme ba ngeen mën a delluwaat ci seen borom kon dimbalante boobu mën ta ñàkk yow mi ko gis sa sa bopp ba da ko gis sa morom tane la ñëwal ci moom ne ko dimbali ma ci nangam ndax maa ngi ci nangam ak nangam soo ma jàppale wut sama tayeel gi du ma ci jóge sama nelaw yu bari du ma ci jóge gaa yi jàppale ma nu bokk waxtu nii def nangam wala waxtu nii def nangam yàlla na la borom bi tabaraka wa taala génne ci ci xeeti càggante yooyu ak xeeti ñaawteef yooyu te boole na ko nun ñëpp barakallahu fikum waaw xam waaw xanaa dañuy gàttal rek ndax mel na ne demi lañu waxoon de doy na wala
waaw yooyu boo sonn rek
waaw ñu teg ci juróom fan da nga tànn yi gën a kii
ورقات المحاضرة إذا أمكن xobal بارك الله فيك
juróom-benn mooy nan laay nekkee muxlis ci sama biir kër ak ci sama njaboot mu ne man damay jàng juróom-ñaareel bi damay jàng benn minute de si bu état bi dama faa bëgg may jàngee jàpp waaw damay déglu question ah waxaatal
mu ne damay jàng benn université bu état bi.
droit
ak loolu laa gis bu état bi mu ne maa bëgg ni may jàngee tamit ma fàttali sama diine moo dem ak yan dénkaan nga koy nekk.
droit lay jàng
ñaari des na xaw naa sori dem bi tuuti parce que kii bi ñu naan maa ko moom projet xalam lan mooy atte football keneen ki mu ngi laajte lan mooy atte planning familial ñaar bi mujj kii bi ngi laaj ban taxawaay la ñu war a am ci mbokk yi nga xam ne dañ leen tëj kii jiitu ci ñoom ñëpp imaam Ali Bakar Ndaw maa ngi lay problème yoon bi xukmu salaat tasbih lan mooy atte bi est ce que doxal niiw ci dëkk yóbbu ko ci benn dëkk ko suuri ko est ce que loolu dagan mbokk yi moo fi doon toog ci ay laaj gis nga.
alhamdulilah nan la nit ki def ba sellal fekk mi ngi ci biir këram ak ci njabootam xëy na laaj boobu li ko waral mooy nit ki ci biir këram ak ci biir njabootam léeg-léeg la muy yëg dana wóote ak la muy yëg su dikkoon fii ci jàkka ji toog di déglu borom xam-xam yi di déglu nangam boo delloo ci kër ga ak njaboot geeg kaf geeg coow la gi mel noonu Hanzala waxoon na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nun day damaa ragal ne ay naafeq lañ mu ne ko lu xew mu ne ko bu nekkee fi yow fii di jàkk ji li ñuy yëg dañuy dem ba àgg ci yëg-yëg boo xam ne ci wàllu diine niveau kawe la waaye buñ delloo ci kër gi ba kaf ak njaboot geeg soxna yeeg yu mel noonu dañuy wàccaat yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko noonu la ni ngeen di mel fii su fekkoon ne da ngeen koo mel continuer kon da ngeen di dem ba malaayika yi di dajeeg ñu yéen di leen jox loxo maanaam lam koy junj foofu mooy kon du ngeen nekk doomu aadama waaye ay malaayika ngeen di soppiku te nekku leen nag ay malaayika ay nit ngeen maanaam yow bul séentu mukk ne buñ lay wax nii da ngaa war a doon koo xam ne da ngay dem ba nekk malaaka moo xam ne yow daanaka nekkatoo ci kaw suuf si déedéet nit nga koo xam ne sa ndoom aadama da ko war a feeñ itam nag waaye buy feeñ it nag na feeñ feeñin ngoo xam ne bu tënku ci sharia la ndax nit dana kaf ci këram ak i soxnaam ak i moroomam i nangam mu kay dana kaf yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana kaf wala yaqulu illa xaqan loolu rek ngay sàmmati foofu la ko sharia tënk booy kaf ak njaboot geeg doom yaa ngi mel fexeel ba la ngay wax nay doon dëgg bul kaf ba wax lu dul dëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam soxna su màggat ñëw na ci moom ne ko damaa bëgg nga ñaanal ma ma dugg àjjana mu ne ko màggat du dugg àjjana di kaf ak moom mu daal di tàmbali jooy mu ne ko déglu mu déglu mu ne ko li tax màggat du dugg àjjana mooy ku faatu woon nekk màggat ba lañ laa dugal àjjana dañ lay delloo si ba nga nekk ndaw toolu ci sa digg doole door laa dugal àjjana door koo ñaanal nag mu daal di ree kontaan kon kaf am na ci diine ji waaye na doon kaf goo xam ne day fekk dañ ko tënk ci dënk dañuy gàttal boole njàngum université ak mën a def li la war ci sa diine yi moo xam jàng la moo xam jaamu yàlla la amu kay lu mën a nekk la da ngay maandu maandu bu ñu ko waxee al adl mooy tawassul leen lu ne nga jox ko ab xam itaau kulli di xaqin xaqahu bul ne mukk damay jaamu yàlla di julli ak di julli guddi ba tax sa njàngum université nga teg ko fële bul ne damay jàng sama njàngum diine ba neen njàngum université ba neenal sama diine ok leen lu ci nekk wutal ko waxtoom woo xam ne ca nga koy def te waxtu doomu aadama lu bare ci xaj la nit ñi ñoo ko ci xajale wut rek ñaare lii tax waxtu yi benn du barkeel wala lu bari du ci xaj mooy ya koy sànq moom la nit ñi bàyyiwul xel te waxtu lu ko sànq dafa yomb faw ñu respecté waxtu yi faw ñu bind programme bi yore ko bis bu set soo xëyee ba ngoon lan nga war a def tey loolu soo ko defee ba sa cër miin ko da nga miin waxtu te itam sa waxtu duut sànq góorgóorlu rek jéem a boole jàng yooyu football amoon nañ conférence boo xam ne ci sport la jëm spécial football dañuy wax ne lu dagan la moom sport yi ci des yépp ñoo yam waaye bépp sport buy dagan day fekk ñu tënk ko ci na ko sharia jàppale faw nga xool di ngay sol faw nga xool waxtu wi nga koy def bu waxtu julli jot mukk nga ne ma damay football moo tax mënumaa julli léeg-léeg koor ñëw nga ne ah damay football moo tax du ma mën a woor déedéet loolu moom amul ci football boole koog wattandiku nag yeneen fitna yee cay am yépp soo ca mënee góorgóorlu su boobaa du wàññi dara su fekkee rek football rek la ngir tàggat sa yaram loola moom solal sa col bu baax seen waxtu woo xam ne bu baax la yaa say morom boo xam ne benn farata du sànku ci yoon nga waroon a def su ko defee bu boobaa du du yàq dara planning familial dafay dagan ci kaw benn cause maanaam benn sabab mooy tax mu dagan mooy wàllu santé rek wér-gi-yaram jigéen a ngi daal yoo xam ne am na doom docteur yu docteur yu maandu seet nañ ko gis nañ ne moom mii biir ñaari at yi bu sàgganee ba ëmbaat fi loolu mën na koo lor moom mi wala mu lor doomam ji judd wala doom ja nar a judd kon dana ko mën a lor ñu ne ko yow dafa jaadu sa santé dafa laaj nga noppalu ñetti at wala ñeenti at su boobaa sharia day wax na noppal na noppal kenn du ko forcé ne faaw mu ëmb di alal boppam waaye wala muy alal doom ji jub su demoon bañ gis ne moom mii su ëmbatee bakkanam xaj na ci tam sax ci ay docteurs yu wér yoo xam ne ndaxe wuñ defuñu lenn laaj ko kii mu génne loolu mu dem fee ñu génne même résultat bi ne ko yow mënatoo ëmb su boobaa charia da koy wax defal limitation de naissance arrêté njur bi loolu la koy wax ngir benn règle générale boo xam ne day wax ne garde li fi nekkoon moo gën ngay wuti leneen ba fa faagaagal li fi nekkoon garde li fi nekkoon moo gën ngay wuti leneen ba faagaagal li fi nekkoon doo dese dara faf su boobaa ndaw si dañ koy may mun limité li dul dagan daal mooy yenn xalaat yi yoo xam ne dañ lay wax ne dañoo bëgg a soreele njur mi ndax doom yi suñ baree duutu am lu mu leen dundale duutu leen mën a yar loolu ay caaxaan la loolu moom sharia xamu ko sharia lim xam mooy ku judd ku ne sa wërsëgal a jiitu ku ko doon wërsëgal ba mu nekk ca biiru yaay ja bu génne moo koy jox wërsëg li am solo mooy nañ ko jàngal yar ko askan yi boo gisee ñuy taxawaaru du caagi ni bari guñ bari moo tax waaye dañ leen tegul ci condition yi jàng nit ñi dañoo war a jàng li ñu jàmbat naan chômage beeg nangam ak nangam boo xooloon ñi ci am formation ñu néew lañ maanaam ku amul métier nooy nooy liggéey nit ñi il faut ñu jàngal leen xam-xam jàngal leen ay métier ku jàng xam-xam ba am ko nag ba jàng métier ba am ko ba noppi jot amoo loo liggéey kooku lañ naan day chômé waaye ki amul métier liggéeyut loolu loolu lu naturel la ki amul métier mënta liggéey lu muy liggéey moo tax bari bari taxut a xiif waaye ñàkk a jàng ñàkk a liggéey mooy tax a xiif chinois yi ñaata lañ léegi ah mas ngeen a dégg ab xiif ci Chine ñi bañ a xiif sax kooku la ñuy dem di wuti lu leen tee xiif faf te ñoo gën a bari ñëpp waaye dañ leen di former dañ leen di jàngal dañ leen di yar yor ay métier lii ñuy wax naan dañuy tere gone yu liggéey yu mel noonu da ngay dem foofu gis gone yoo xam ne juróomi at lañ am tàmbali di liggéey même buñ dee jàng ñu ngi liggéey ba keroog ñi am 80 ans da ngay dikk fekk ñuy liggéey loolu de parce que mu mel noonu du xiif kon kay li ñu war a wax mooy suñ askan yi moom dañoo war a góorgóorlu ba ñuy liggéey di jàng su ko defee mën a tekki dara taxawaay ci ñi nga xam ne dañoo nekk ci prison xanaa ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu génne leen te fekk dañoo génne ak set yàlla na leen suñu borom génne te fekk dañoo set wecc su dee nag taxawaay bu ñuy déclaré loolu defoon nañ ko ca ndaje mu mag ma li amoon ca stade Amadou Bari ab déclaration jib na fa boo xam ne ñi nekk ci association islamique yi ñoom ñëpp ñoo ko bokk sama kàddu mu nga ci biir kàddu yooyee moo tax amaatuma geneen kàddu bu may beraat di wax ne lii mooy sama taxawaay ci lii wala ca lee xanaa di leen ñaanal sama diggante ak sama borom ba ca tegu salaatu tasbix xadis yi ci ñëw wérut ab xadis wéru ci tuxal ab néew suuli ko feneen ci beneen dëkk loolu mën naa nekk su fekkee illa ji tax ñi koy def ñu sharia nangu la bokk na ci illa yi sharia nangu mooy dañoo bëgg mu jege ay bokkam dañoo bëgg mu jege ay bokkam loolu sax na ci saxaaba yi ñu faatu woon ci Uhud ñu toxale seen bàyyi fële indi leen feneen koo xam ne seen doomu fa nekk ñu dendale leen ñoom ñaar ay nit danañ faatoo ci ay dëkk yu bare bare bari ñi di leen duxal di leen indi ci béréb yoo xam ne la ko waral mooy seeni bokk moo ko dëkk waaye nag ci kaw condition mooy bu ca yàq alal tegu nag nit ko faatu na bàyyi fa ak njabootam alal ñu jël alal yépp paasale ko ko mu jóge feneen ñu indi ko fi alal di jeex ay doomam ne tucc loola moom kenn waxu ko wala nga aj ci yeneen i pas-pas yoo xam ne da nga naan boo ko suulee fii nangam nangam ak nangam nangam loola moom sharia bu ko noonu wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain